Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. Bataille, nous sommes nous, nous sommes ici Singalam TV, comme d'habitude. Votre chaîne, nous le rendez-vous sportif. Cette fois-ci, ne soit pour le compte de la finale, ne soit de la zone de Pékin, opposant Natangé à Wayeo. Nous sommes venus ici à Natangé, fas yéene jàkkaarloo ak ki le président de Natangé. kon ko ko impression ci li nga les préparatifs de la finale qui va se tenir ce samedi 23 au stade Assane de Pékin. président ñu ngi lay nuyu. la bon comme vous venez de le dire hein, je pense que si une préparation finale contre eux, ça ne sera pas facile d'autant plus que ngeen fu ñu semi finale départementale pour une première fois vouloir marquer histoire de la finale départementale gagner, mais nous avons gis nañu ko peut-être ni ko yàlla def dañuy santé yalla rek gëna a doublé waat defar gëna a taxawaat vu aussi même pas deux jours ñu wara a benen beneen final contre yew final zonal kon préparation bobu du yomb pour dire vrai du yomb mais lepp lu ci war ñu ko wara préparer préparé ñoo ngi ci euh, lu war côté staff yi côté joueur yi côté tout ñun ñoo ngi ci ba nga xamné vraiment cette fois-ci on va sortir avec la porte la grande porte nga xamné victoire lañ ci ñaan yalla mu may ñu ci inshallah coach avec la finale départementale que vous avez perdu hier est-ce que ça n'aura pas un impact négatif ah mais ah, bien sûr de ko mais xam nga ku xam naa da nga xam équipe bu mag la euh, d'autant plus que puis bah d'accord mais boo leen xamee boo leen xoolee nu ñuy demee finale avec des jeux des cadres déclenchés pour une première fois ñu jeu régional jeu finale départemental c'était pas facile ñu ñëwoon à stade bi bon bon et puis doon joué équipe bi nga xam ne c'est pas bi mooy troisième fois bu ma juumalee muy def football final départemental mm-hmm. kon c' était pas facile pour suñu booy expérience dafay feeñ bon te loolu moo feeñ ci match mais booy doole nañu à fond lépp lu ñu def nag peut être xëy yalla yàlla moo ñëw ak defetam dañ koy sant yàlla bu baax mais dina impacté dat mais dañuy ko xam naataay nga xam équipe bu mag la. ko am naata ngay xam dafa mën a final zonal te luñ ci war pour préparation finale ci kattan yalla, dinañ ko def et puis xam nañ luñ ciy xaar ah il faut ñu nous si ak ndam rek te loolu incha allah dinañ ko def donc si je comprends bien vous avez un mental d'acier et comme ni l'avons ko tout à l'heure pour la première fois ngeen am ay jour qui yoo xam déclenché. Mm-hmm. en l'occurrence je veux citer euh, un jour très très important dans votre effectif qui est Pape Diagne. Pape Diagne donc est-ce que à tout ba nga xam te un tey match bi kon mun bu ñu nee bërët rek da ngeen tàggali ko waaye waawal de. waaw mais non lay demee comme ni nga ko waxee ni nga cité Pape Diagne ak pendant tant d' autres ah, si nekk si biir et puis pression bi xawoon na métti si ñoom ah, quoi qu'on puisse cadet déclenché xam nga boo nee cadet déclenché mu jeu final département pression bi day bëri si moom. mais avec euh, staff technique bu mu am ak euh, ñi ko accompagner je pense que pression boobu dina wàññeeku si final euh, contre yeew bi ba nga xam ne vraiment suñu final contre yeew. Euh, yàlla mën na def jafé jafé buñ ci si wala li ko nit ñi fogg fofu yëp mën fa bañ a yegg parce que daje nañ daje nañ euh, demi finale yi euh, daje nañ quart de finale match de poule ah quart de finale daje lañ yalla dafa ñu def match nul kon koku jogonté nañ ba pare côté être da xëy deuxième match de tension bi du du metti dal du metti en quelque sorte du metti. et la mobilisation du côté des supporters ak les décorations yi nga xam mom lañuy gis chaque fois oh. bu équipe bu qualifié finale voilà mobilisation est bonne, nekkoon fi hein. décoration bi commencé avant ko avant finalu départemental avant mais que kon je pense que lancer boobu lañ nek. c'est élan élan boobu nek, té te guñ ci ba légui, te boy supporters motivé nañ xam nañ len, waxtaante nañ ñoom conscientiser nañ leen dañoo perte final départemental mais perte ñu final zonal mm. comme yalla xagn nañ final euh, départemental yalla mënañ may final zonal kon mettez-vous à fond joxe leen li ngeen am.

mais je pense que ça n'aura pas un impact parce que mhm. bu nous xoolee départemental daanaka si année bii passée l'année année bi ñu génn mhm. te donc boo leen jouer finale zonale bii ni ngeen waaj di ngeen départemental donc normalement on war a mën a carrément. non amul impacté parce que boo xoolee finale départementale bi ñu joué c' 2002 je ne sais pas année bële la woon peut être dañ ko tardé jouer. mais boo xoolee ba léegi ñun ñoo phase départementale parce que bu yàlla defee ñu joué finale samedi dañuy nekkaat de élan départemental parce que ñun génnaguñ si départemental bële lañ perte mais bii yàlla mën nañu ko may pourquoi pas Si yàlla may may euh, finale ñu jël finale zonale bi dugaat si départemental yàlla mën nañ may si finale départemental d' autant plus booy ñoo ngi ñoo ngi ak ñoo ngi ñoo entraîné ñoo am staff bu

soudé boole suñuy doole yalla mën nañ may ndam si final bi di ñëw. ok merci beaucoup. merci beaucoup merci waaw ma Samba Yassine Soumaré hein président de l'ASC Natangué merci de remercier aussi wa Ngalam TV parce que ñoom ak ñom depuis bobu ba légui on est toujours ensemble ñu ñaan yalla liggéey bobu yalla na sax dal jërëjëf di leen remercier bu baax sur cette lancée des préparatifs de la finale version 2023-2024 zone de Pékin. maintenant finale qui va opposer de l'ASC Natangé à l'ASC Yeewu ba tey kon comme ni nga ko gisee ñu ngi fii si biir parce que jël li nga xam les impressions des supporters n'est-ce pas concernant les préparatifs de cette finale Mon grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ngalam TV. mën nañoo xam à bi ak euh, les préparatifs yi ngeen xam te ni yéen a comité supporter bu Natangué. waaw alhamdulilah koy tàmbalee ci bisimilahi rahim waaw di ko ñaan rabbil alamin muy suñu final ak yow yàlla dafa ñu ci ndam lu sedd guy waaw waxe si kaw quoi en fait je je veux dire naka ngeen waajee seen final bi ah préparatif yi parce que gis nañ ñu waay yow tey kon boo romb ñu koy décorer tal lumière yi musique bi et cetera muy muy suba muy ngoon yéen aussi fii normalement final na la war a parce que la finale c'est une fête donc nag ngeen koy waajee du côté de naataange comité supporter loolu dëgg la ma ne waa loolu dëgg la ASC bi bis yu mel nii tàmm na ko yàgg nañ dem fii kon tamit préparation bi tamit nañ daan def rek la def continuer yokk mobilisation bi yokk engouement bi préparer bis bi incha allah yàlla defal ñu ci ndam kon nag tey jii ni boo ñëwee fii gis ngeen banderole yi gis ngeen euh, population bi tamit ñëpp ñu si ginnaaw du ñu motiver du ñu dooleel pour rek ñu jëli trophée bi. li nak xam du fi guléet yag na fi kon ñun xam nañ yoon bi té ñu ngi woo tamit bépp supporteru ASC Natangé ñu ñëw massivement dolé sen équipe ci jour boobu. dolé sen équipe ci jour boobu loolu la nga xam te ne moom mooy nga xam te ne la moom la ma wax mais dañuy tourner rek jëm ci sama l'autre frère laaj ko moom aussi naka la jàppee ni nan la waa naataange di préparer final bi est-ce que jàpp ngeen ni tey yeewu adversaire c'est facile à manipuler da ngay ñëw rek jaar ci dès les premières minutes. bon vous savez qu'on est en football euh, amul bien facilité bu euh, mais nous sommes dans naataange bon c'est une équipe bo surtout il a la particularité de de football cette année-ci si vous avez un a niveau c'est parce qu'on a cette particularité par de niveau par yooyu de système yóbbu football bi beneen niveau quoi donc on a rien à envier si ce domaine boobu nous si waa yeewu suñuy xarit lañ mais amuñu dara lu ñuy envier si ñoom amul dara lu ñuy xool si ñoom parce que on a tout c'est nous quoi. ok amoo leen dara loo leen di ragal si waa yow parce que ay dëkkandoo ngeen certes mais bon football la yëfu góor yàlla la mais quand même match dafa am lu am importance su nekk mooy lan si ndaw nekkoon seen ancien joueur daaw mu ànd ak yéen jël li nga xam te ne moom bi version 2022 2023 ré 2023 2024 mu ñibbi si li nga xam te dëkkam alors que pendant ça ans, ki nga xam Cheikh Carlos dëkk biir tu tay moy GS fii nga xam ne si je me trompe pas le deuxième but de la demi-finale sax mom moko ko dugal loolu aussi qu'est-ce que ça fait Bon, Sid Ndaw, euh, c'était un bon jour, un très bon jour. Franchement, beaucoup de na sax euh, si département euh, compétition départementale bi yàlla dogal mu dellu dëkkam quoi mais Cheikh Cargos euh, moom euh, dafa am amour naataange c'est un jeune boo xam ne dafa bëgg tangue te mu ngi koy prouver c'est pour ça ma yaakaar ne moo tax mu des fi continuer di jouer ay final continuer di jouer ay finalam bon euh, Sidi Ndaw dem na mais on a d'autres Sidi Ndaw on a d'autres Sidi Ndaw d'autres jeunes yoo nga xam ils ont du talent amuñu rien amuñu dara loo xam ne mën nañ ko yaakaar dina am benn ben impact bo xam dina ko def ci ci boy yi quoi. ok donc yaakaaroon ni am ben impact mais batay mo grand dañ len lacc c'est-à-dire mobilisation bi ak fair play bi fon ngeen ci toll parce que naataange japp nañ équipe bo xam te ne day teg ba jouer mais quand même du cadre supporter je pense que amna na ay supporters correct pour mon a gérer ñaxte mooy final ñu jouer ko aussi paisiblement après bi paisiblement que ce soit ni gagné wala ñu perte. wa loolu deug la té loolu tamit du guléet parce que boo xoolee naataange loolu lañ koy baaxee quoi maanaam ASC boo xam ne day dund non violence quoi te ñun loolu dañ ciy insisté parce que tamit ñun mënuñu nekk tamit ay dirigeant xam nga di sonn tamit ci benn mbir di gis ñenn ñoo xamante ne ni dañ ñuy yàqal loolu ndax man dama naan violence bokkul ci football. football xama lan la dañ lay gagné mbaa nga gagné après nga ñibbi suba nga defarwaat ñëw taxaw kon ñun cadre violence euh, ñun ci. non violence bi ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo ñaari ASC yi di leen ci motiver ku ci yàlla may ndam nga xam ne lii la yàlla dogal ki nga xam ne tamit moom mooy perdant bi tamit mu nangu dogal xam nga dam dafaruwaat incha allah. que en tout cas que le meilleur gagne entre ces deux équipes naataange ak euh, ki nga xam te ne moom mooy yi euh, ASC yow mais balaa loolu bëgg naa xam moo grand na nga tudd. waaw euh, maa ngi tudd Adama Samake. Alima. Adama Samake. Adama Samake.

xam nga wane le beau ñu naataange pratiquement si loolu la ñuy dox quoi inshallah allah dañ leen ko jental ba samedi inshallah ok donc si je comprends bien ambiance bi wa naataange nee nañ yow dañ leen ko jental ba samedi parce que ñom mu néew ñu ambiance mais football lañ gën mu ne biir terrain bi donc ce qui veut dire que cette finale ça va s'annoncer crucial ça va s'annoncer alléchante donc bu leen ko raté ñi nga xam te ne yéen téléspectateur Ngalam TV képp koo xam ne amul opportunité ñëw stade samedi le 23 na des si kanamu Ngalam TV tek China parce que dafa sedd fas euh suivre match bi si li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom Ngalam TV ñu dicté len final bu nara neex entre ces deux équipes joueuses équipe bi nga xamante ni Pape Samba moo ko yor de l'autre côté avec Yeewu mais l'autre euh, l'autre côté aussi Ahmed Soli yor ko du côté de Natangué di deux techniciens yoo xamante ni kenn dootu leen présenter donc une finale qui sera moi disputée entre ces deux formations donc mbokk ñu leen jox dig daje samedi inchallah au stade Assane Diogo de Pékin. finale de la zone 2 de Pékin, version de 20 2024 entre la Sénatangue et la Yeewu les rappeler que ni fait un match de poule un but partout ñoom ñaar ñu qualifié ñu dajewaat mu un match de xam bon ça va de partager. donc à plus à la prochaine Merci.